ñu gën kaa bëgg déggoo ma de te ku bëgg Sonko yàlla bëgg la yàlla ne qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum desee naa ma may leen naan képp ku la bëgg rek bëgg na ma man te baal naa la ay ay ba ay bakkaaram Sonko ku ko bëgg yàlla bëgg na la te yàlla baal na say bakkaar maa tey wax loolu. ku ko say bakkaar. waaw maa tey. Ah, maa tey. niveau bi xawul a kawe yàlla la. mais bi kaw nitu yàlla la yàlla moo ko bëgg. yàlla jox ko walla ci pouvoir am du yàlla mooy fale te Sonko mooy fale. jox ko muy fale. <laughs> ah yàlla de day. fa lawlaa su ma bëggee sama nit sama jaam bi dama koy nekkaat. Mhm. fi may waxee kay ku xamul yàlla moo moo dul comprendre ku nekk ci maqaama sharia nag waxuma ak yow doo comprendre. ku nekk ci maqaama tariqa aussi di wut yàlla di wut yàlla aw gogo doo ko xam ku def fanaaw fii lay nag xam yàlla kooku lay waxal. xaqiiqa waaw. ki nekk ci xaqiiqa. voilà comprendre niveau. xam nga def am étude élémentaire secondaire universitaire man ci universitaire yi lay wax mais fii élémentaire yi fi ëpp ci wàllu diine docteur moo tax souvent booy wax. moo tax nag nga nga bese nga bese xadar bi gis nga amee Khalifa Niass lu bëri lu muy wax si xaqiiqa la. du waxu public moo tax mu mu diis ci nopp nit ñi. mais tôt ou tard un après di nga xam li wax dëgg la. Hmm. mais dafay diis. waaw ah, day diis koy waxee ñi koy waxal. waaw ah. ko attan. képp nag ku fi gisul yàlla billaahi boo demee àllaaxira doo fa gis yàlla. fii ci alxuraan laa la wax ni pour pourtant am na fu yàlla ne kenn mënu ko gis. waaw. Ah. Hmm? mais am na fu muy naan képp ku fa jógee gumba bu ñëwee fi gumba lay doon. ban gumba lay wax du gumba bii di yalwaan kay gumba bu dul gis yàlla la wala euh, man kaana fi hadihi ama faxwa fi l axirati ama wa adallu sabila te doo fa gisaat sa yoon kon yoon dem ci yàlla am na di dañoo comprendre loolu xam di ngeen xam vous n'avez rien compris Sonko xamaguñ ko Sonko léegi la am pouvoir ci dëkk bi Sonko léegi la ko nit ñi gën a bëgg man je quitterai ici incha allah aller jusqu'à Kanel taal sama escorte de voiture rien que pour sànni sama carte. sànni ko Ousmane Sonko. et laisser de travail waaw dimanche damay liggéey. ah dimanche mais dama koy ba. samedi su ma wàccee taal sama escorte ak rek samay garde corps dem woti ji. loolu moom seen dañ laa war a topp. benn carte rek lay xob xob bi lay sànni ji de. xool escorte 500 et quelques kilomètres lay def. aller retour lay def maa tey. fii waaw. pour Ousmane Sonko. kese ak Cheikh Bara Ndiaye aussi mu ngi ci liste bi sama doomu ndey leen di may ndam rek laa bëgg. xam nga docteur bu demee ba ni même bu Ousmane digli woon koor ma woor te docteur du woor man ci man bu ma nee sax ma nee la génne lislaam tey ma génne lislaam sama wasiila la. moom sama wasiila la. fu ma nee nii damaa def pause yëpp ci tarika yëpp ba mu nee ma tarika bii laa nekk ma nekk ci boobu. waaw maa tey. fi mu yow nag. Euh, xaw ma de. maa nit ñi dégg. maa tey ku mu naqari nga toog ci gaz. aw ma droit bëgg comme bëgg. am nga ci droit am nga droit bëgg nu la neexee. jeex na ak itam nu mu la jeex na mais quelqu'un comme. nee naa la alaaxira sax su ma demee àjjana fekk ma ko ma sonko nañ ma génnee àjjana dañ ma yóbbu fu mu nekk xanaa wax ji jeex na. donc ça veut dire Ousmane Sonko. gis nga li ñuy def ni ay milliards di ko génnee di yóbbu ci ci ndox mi bu inondation amee. Sonko day sonal boppam soxlul milliard. na ne booy yi rek nañu wax ñun nañ dem naan ndox mi ñun naan ko léegi léegi mu jeex wax ji jeex. inondation nañu woo rek léegi léegi ñu manque ndox mi dañ koy naan mu fin. kon ça veut dire Sénégal am nañu chance bu rëy bu kenn amul. te chance bi une fois lay am par par siècle. dof dof lu leen ba ngeen ñàkk Sonko tàppalekat yi sàcc yi ñi tekkiwul dara lu dul mbéb mbéb mbéb rek di lekk l'argent di lekk l'argent du contribuable tekkiwuñu dara lu dul xaalis politique leen dundee nit war na bakkoo man xaalis bu politique lañ ma ngéntee yaa ñàkk jom l'argent du contribuable politique politique cim loolu nit kooku war na bakku ñu bari na doo uti tool nga bay ñu liggéey kër baayam la nekk ba léegi loolu tamit. loolu c'est pas mon problème. kooku du ma tudd turam xaju balcon laa xam ki ngay wax xaw ma ko. gars man daal xaju balcon laa xam. <laughs> mais tamit Barthélémy Dias la tudd. wax ko xaw ma ndax loolu la tudd man daal Bart man daal xaju balcon laa xam point. koo xamante ne il se croit quelque chose il se croit fekk du dara. on t'aime munoo fexe ba ñu bëgg la tojoo fenn. on t'aime pas et on t'aimera munoo wax bi nga saf ñu war rek nga fi nekkee ana ñu mu nekk loo ñëpp oui Khalifa Sall qu'elle disait Dieu Khalifa Sall je vais vous dire une chose aujourd'hui en direct benn fidèle nga am benn fidèle Soham Wardini la mun naa ko seede te yàlla tax Soham Wardini jëlee naa ko fii 23 heures yóbbu ko ba tuuba je vais te anecdote ah. sëñ Mourtala bu sëñ Fallu war ñu recevoir. Mhm. ma bëggoon ñu ubbil ko raw sëñ Fallu mu ñaan soxlam. xam lan la ñaan. waaw na xalifa jiite réew mi. mais bi mu amee décision boobu ma xam ne ubbi luñ ko rawda bi sëñ Mourtala yem këram maak moom ñoo ànd fekk tëj nañu mosquée bi ci buntu mosquée bi taxaw fekk dañoo tëj mhm. ma xam ne Khalifa Sall du nekk président. parce que bu amoon chance boobu dinañ ko ubbi rawda comme man nañ may ubbilee rawda sëñ Fallu guddi. may ñaan sama soxla. moom elle n'a pas eu cette chance foo rek laa xam ne xale du nekk président ñu ngi ñëwaat fii 4 heures matin bi ñuy ñëwaat xam nga ne ñaata laa doon daw. 160 kilomètres à l'heure voire 180 ci Ford Escape titanium bu bees. Mhm. le lendemain xam nga lan la ma bind message merci pour les 160 kilomètres à l'heure tellement dafa tiit lu mu xamoon jàng na ko. <laughs> kooku voilà une fidèle de Khalifa Sall firnde gi sax bi ñuy dugg Touba Khalifa woo na ko. mooy après la prison de Khalifa kooku moo bëgg Khalifa soxlul dara loo dul na Khalifa falu voilà une fidèle de Khalifa sal kooku seddal naa ko. d'accord mais Bougane nag. non on parle pas de damay jóg plateau bi de. d'ailleurs même je quitte. rien qu'en me prononçant ce vaurien là ce mégot de cigarette là je quitte le plateau. asalaamaaleykum wa rahmatulah. mais yow tamit nag donc mu ngi noonu docteur quitté na parce que euh, Bougane mi ñu ko tuddal moo tax mu quitté mais ñu ngi leen di euh, gërëm bu baax a baax ci ànd bi ngeen àndoon ak euh, ñun ci entretien du jour bi di leen jégalu bu baax a baax a baax itam jox leen dig daje ci beneen jotaay Ndeye Fatou Seck moo ñu nekkaloon ci xarala bi.